asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi seetaan Ali Imran TV ñoo ngi leen di nuyu amaan nañ mbégte ci dellu siwaat ak yéen ci seen émission bii di ndénkaane ay bisgi gi ndénkaane ay bis ay taxaw seetlu lay doon yoo xam ne da leen di ñeel ñeel suñu dund niñ ko baaxoo waxee mel na ku dox ba yem ci am mbir moo xamante ne mënu ko weesu ndax danga ko war a jàngat loola mën na laa jural ay njariñ yoo xam ne da koy jariñoo benn muy looy jël yóbbaale wala loo xam ne da koy moytu ndax wuru laa laal wuru laa jege ba nga di ko yóbbaale bu ñu seetloo suñu jamono ji daa bari lu ñuy wax jëmale ko ci wàllu sëy yi sëy yu tas yi bari na sëy yi am ay jafe-jafe bari na loolu nag buñ koy jàngat mën nañ koo xool ci fànn yu bari mën nañ koo xool ci anamuk li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo koy waral mën nañ koo xoolit ci anamuk yi nga xamante ne nii moom lay jur ginnaaw bi am gi amee ba noppi mu mel ne buñ ci delloo euh, xel ya xalaat yeeg waxtaan yi ciy dégg daf ñuy jox joxoñ yu baree bari léeg ñu ne jafe-jafe yi ñaar ñi ànd mel ne ñoo xamante ne dañoo bëggantewut te am nay jamono kenn ku nekk am lum jaraloon moroomam bis bu set ma wax ko kenn ku nekk léeg mu am lum jaraloon moroomam loo xam ne danga nga naan maara day man koo dox loo guddi man koo doxloo bëccëg man koo yàgguloo ci téléphone bi lool man koo jaral lu nekk tey nag mënatuñoo wax ñaari baat mënatuñoo wax ñaari baat ba déggoo boo muy tuut mën nañoo xëy suba ba ngoon jot kenn du tudd sa moroom kenn du taas sa moroom te ñoom ñaar ñoo ne ñooy ñaar ñi war a ànd ngir sëy loolu jar naa jàngat jar naa xoolaat lan moo koy waral lan moo koy waral léeg doo ko tuddee ñàkk bëggante waaye man nga koo tuddee ñàkk déggoo ci ñàkk xam lan lañ war a wax ak fan lañ ko war a waxee ak nan lañ koy waxe bu boobaa loolu day daal di tàmbale def ay jafe-jafe eh, ci suñuy diggante te ñu ngi koy seetlu li ma taxoon a jóg tey sax ci taxaw seetlu bi bala maa ñëw ci loolu léeg-léeg wax ne góor ñu baree baree bari dañoo tële maanaam dañoo mën a tut seen bopp ci wàllu lal ma ne ah loolu de kon bu boobaa jar naa waxtaane ndax su ma génnee di dox ci dëkk bi damay gis jaaykati garab yi bari lool boo xoolee publicité yi ci rajo yeeg télé yi gis mu bari lool ñuy publicité ay garab wala ay mbir yoo xamante ne nee ñooy day yokk ngóora boo dégloo waxtaane itam loolu bari ci lool ñenn ñi ne lekk gi la ñenn ñi ne xalaat yi la maanaam dañoo stressé ñenn ñi wax ne gars yi dañuy teel a fo ndax am na at yoo xam ne ku ca toll waroo tële ma bëggoon a indi tey beneen xalaat boo xamante ne da cee am te mooy mën naa baña doon ci yooyu benn am na ñu bari ñu yaakaar ne dañoo tële fekk tëlewuñ maa ngi koy wax tey waaye nag liñ leen li ñu wa li ñu yaakaar ne moo war a nekk ak li nekk daa bokkut mbirum sëy lañ waxtaanee wut dëgg-dëgg ba àgg ci fond bi ak ni nga xamante ne noonu la war a tëddee am na koo xamante ne xaajuta fekkee sax fa ñuy tëlee waaye nag daa xamul li muy def nan la koy defee maanaam jote googu di am ci lal bi eh, li ñu war a séq moom la xamut ci wan yoon lañ ko war a jaarale léeg-léeg yi ko war a jiitu ci ay waajtaay nga xamante ne yu baree baree bari la boo ci burlee benn étape mën naa jur fa nga jëm mm, nga gaaw faa àgg ndax li ñuy wax tey euh, teel a noppi ci ab sëy maanaam daanu ñu baree bari euh, buñ ko teelee def mu metti leen te kuy sëy ku ne nag ci daanu nga jëm <laughs> maanaam loo xamante ne mooy yi maanaam fa la nit di yëge bànneex waaye ku ko yëg mer ku ko teel a yëg jug faju ji am na lu xew li muy tegtale mooy dañ jut waxante dëgg gi dëgg léeg-léeg ñun nit day wax akub xaritam xaritam ba di ko wax lu du dëgg bu dee ci góor ñi di wax naan yii man di def naa nangami kii ne man de def naa nangam mi temps door a door a noppi yow nga xeeb li nga manoon te fekk waa ji day sóob rek def fa sax deux minutes yu mat wala léeg-léeg ñu envoyé la ab video boo xam ne boo demoon fañ ko doon tourné boo moytu day dagg ñuy monté muy muy reprendre ñuy monté nga seetaan ko vidéo bi mat cinq minutes yoo xamante ne waajaa ngi sëy ku jigéen ki nga jàpp ne yow da ngaa war a sëy cinq minutes wala da ngaa war a sëy vingt minute loolu dana la yóbbee nga naani café dana la yóbbu nga jëndi ay doom dana la yóbbu nga wuti ay sunguf te fekk tëlewoo gis nga ku góor bu fekkente ne a ngi jóg bi mu jógee ba noppi dëgër ba noppi eh, eh, mën a jëflante benn minute sax bu dëgër am na nu nit ki di jànge wàllu sëy ak ya ca aju day doy sëkk ci moom ngir mu mën a satisfaire ki nga xam ne moom la nekkal benn minute laa wax léegi soxlawul nag yow ku jigéen ki ngay déglu sa xarit yi nga xam ne duñ la wax dëgg naan yii man de waa ji démb xaw na maa rey xam nga yooyu sax lislaam da koo bañ lislaam nee na li ngeen di seq ci seen biir néegi sa yi bu leen ko waxtaanee moom mu ne la sama waa ji xaw na maa rey démb kay def naa ak man 20 minutes def naa ak man 15 minutes yow nga ñëw xeeb sa waay mi nga xamante ne xëy na 3 minutes la defoon nga jàpp ne dafa feebar moom it mu jàpp ne dafa feebar day naani garab ba far feebar wala mu koy xalaat ba far feebar bu boobaa nag li ciy musle da caa bokk sëy dañ koy waajal sëy dañ koy waajal ay waajtaay yu bari yoo xamante ne mooy jiitu jote gi ci lal bi bu ñu xasee ba ñëw ci lal bi itam am yu baree bari yoo xam ne mooy jiitu li nga xamante ne mooy jote gi jëmmi jote gi ci boppam maanaam jëmmi jëflante gi ci boppam yi ko war a jiitu yu bari la ay bis gi di ñëw dinaa ci ñëw incha allah ci beneen émission ndénkaan salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.